mais gars yi non. Malick Niang wax leen ko combat adu parce que Malick Niang am na ay jamono ñuy wax diggante mag Forza mu bañ waaye ci diggante bi Forza dafi am lu bëri lu fi def ci benn ngem <laughs> Malick Niang tànk eh. woo nga ko nekk Malick Forza ñoom ñaar ku la jox sa avance doon nelaw combat bu te combat buñ moom xanaa moom ah loolu ñettim mm. la en mitrailleuse. waaw dëgg <laughs> ko tegee jarul ken di ci di ci pronostiqué ci bëre. waaw. <laughs> non dafa ndànk. combat ñaari ñaari xeexkat la de man de combat boobu wax dëgg yàlla bëggu ko ko. bu doon sama daal. non kenn bëggu ko loolu réew mi réewu jàmm la. te làmb mooy suñu teraanga soxlaa ñu kenn di fi rey kenn. bës loolu boo ko <laughs> tëjee mooy parce que. non kenn du ci dellu ginnaaw kenn du waaw te ñaari xeexkat lañ. ni. ni ni New York dafa sedd guy yaa ngi wax rek maa ngi ñàkk gis nga. li nga que Sidi Toumbeur baa ngi des ci moom ba tey. Oh. bant lu baa ngi daw bu baax. xalaat Malick Niang kan lay metti non Malick Niang Malick Niang kii combat rayante la loolu. fi mu toll Malick Niang yow kan moo nekk sa nga a bëri lu tax xam ko parce que sama papa kat yi moo ko yor léegi. Euh. boobu bëggatuma ko mais bi ma doon sonal temps yii si kii bëggoon naa kaa léegi mais léegi moom wax dëgg yàlla ak cent milliards bëggatuma ko parce que kat yi dama jox cër boo xamante ni du entraîné benn bu entraîné woon ab dof sax bu koy indee dama ko dóor. non waaye dofi man dof la. non exemple quoi exemple quoi man non man man sama oto boo ko gisee ay dof rek ñoo siy nekk. <laughs> dama dof bu ma gis amul yére ma yëpp ko sama oto bu ma gis amul lekk ma yóbbu ko secrétaire jënd ko lu mu lekk. moom dof ko tuddee muy wax loolu quoi mais xam nga hmm. Malick boobu bu jaree uh-huh. ñaan mu bañ ko entraîner pour combat bi taxaw parce que combat bu àdduna kaar la parce que xam nga lu tax. non combat boobu combat boobu bës daguma ci xam ku ci daax a xeex rek waaye combat bu xeex la daal bës Malick Niang kon ni mu waxee nii duutul bëree teg waa écrit face non non non non dinañ bëri. donc donc moo bëri. ah moom déglu ko déglu ko. moom nee na duutul ah. yaram bi yaram bi kat yi

yenn adversaire yu yooyu naan ay lébu leen ak ñoo bokk lii ak ñoo bokk laa mu ne lii làmb la nañ jël loolu tegee ko fële dañuy bëri eh, eh, loolu màkk ka màkk ka gën a teg fële foofu mënoon na maa romb si mbedd mi rek ne ma xëy eh, sa bët bi suuf a ngi si fay dara boobaa naa ko lijjanti nga xam ne course du ko indi dara du indi yaa ngi ma la bu baax mais pas ñu signé ay contrat kat yi toog si man may bëri ak moom loolu dama ko jomba loolu dama ko def mais est ko boo waxee sa xalaat da nga may moom mu jox la xalaatam man sama xalaat laa def. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. su ma doxoon si mbedd mi ba mu ñëw sama loxo ne ma doo jaar fii ma lijjanti ko sama bopp ak sama manière. Mhm. mais ma jël ak moom contrat kat yi ñëw toog si siis bi. tey jii sama internet toog siis bi ma war a jàmmarloo moom loolu du ko def. mais kii nee na Malick Niang Siteu Malick Niang Siteu. man de du ma fi tudd benn bër. combat la mag la. ñii na Malick mais nag bu dee làmb ju neex rek làmb ji nga xamante ne moom la amateur yi bëgg tey ji diggante Malick Niang ak Forza xam nga lu tax mu neex dafa nekk mm-hmm. làmb xaar xaaral ma amateur yi lu tax ñu toog seetaan ma sept ans bëriwuma kenn indiwul benn benn masi sama biir kër am tey ñu bëgg maa forcé koo xam ne su ma entraîneur moo koy entraîné loolu du ma ko def du ma bëgg lu neex amateur ba ma di ko def dañ ciy ñaan mu am ci ay intermédiaire ñu dox ci ba xam ne làmb sport bo boo leen fa yónni woon ku si àdduna du ma bëreex moom xalaatuma ko. te moo dem bat ñi bokk entraîné combat boobu. non non defal naa Malick Niang yow boo dimbaliwul Forza Forza kenn dootul bëreeg moom ci làmb ji Forza amatu fi adversaire moom benn adversaire la fi am pare tamit day continuer waat di jàkk adversaire rek. ma ne nit ku nekk nit ku nekk dafa am ay principe boobu dañ ko bàyyi ay principe boobu rek. yaa ngi gis Sa Thiès moo daaroon Sa Thiès revanche am ak Sa Thiès combat ah, bu rëy mën naa nekk loolu kay moom loolu bu leen moo weseen mi ñoon xaw léegi sax ma jël moo daan moo daan Moussa Ndoye revanche am ak Moussa Ndoye tamit revanche bu neex la. yow mais li ma moom mu neex ma moom. Siteu ak moom tamit combat ba deex la. Siteu pour mu confirmer la ci làmb la bokk. Eh, Siteu pour la ci làmb la bokk fi mu nekk nii dafa war a bëreeg dafa war a bëreeg lu la neex rek lay wax fi mu toll nii. non non billahi <laughs> loolu. yow nga <laughs> yow gis nga ku ñeme Malick Niang Sénégal bi Malick Niang ak Forza gis nga ku leen ñeme. moo tax ñoom ñaar ñoom ñaar bu ñu bëriwulee bu ñu bë for ñoom ñaar bu ñu bëriwulee ku ci nekk bàyyi nga bëri. ndax bëriwul ñooy adversaire man moom maa ngi man moom maa ngi defar sama saak moom ren moom bu ma bëriwul doo ma defar sama xel si bëri quoi ren wax naa ne que. mais Malick yow boo demee. Euh, euh, Malick boo demee bu làmb demee ñu a ci nga bokk parce que yow da ngaa war a dundal làmb da ngaa bokk ci làmb. bul waxati loolu bul wax loolu bul wax loolu. non non dama yor dama yor ay njaboot quoi te kenn yoralu ma ko si biir làmb ji wax dëgg na yàlla dama yor ay njaboot. waaw mais mais nañ la wutal affaire sept ans boo toogee di xaar benn liggéey liggéey bi yëngatuwul da ngay dem seeti leneen. waaw yàlla fépp la nekk. mais xam mais xam nga làmb business la tey jii li ci làmb yëpp. ay ñaata combat nga bëre ñaata victoire comprendre nga tey jii nga bëgg ko bàyyi loolu tamit boo xoolee du nekk ful la avant may jël décision bi avant may jël décision boobu waxtaan naa seex ñu bëri. non lamb lamb Malick. mais yow guy gi rëgg guy ni lamb da leen di boole. guy gi rëgg rëgg. lamb business la lamb lamb business la lamb la. Malick lamb business la. waaw moom business xam nga dafa am dafa am loo xamante ni. Mm-hmm. soo ko gëjee def day dem ba boo moytu sax day rocceeku sa bopp wala mu rocceeku sa xel. day rocceeku sa yaram dëgg la mais. mais ci loolu nag. bopp laa lay ngay dem ñu lay ñu si daan daan ñaaw say sët di ko xool wala say doom di ko xool. ba pare yow boo amaatee combat yow yaa war a bàyyi dóore nekk nit di jàpp di gaal mais boo fi nekkee di xeex gars yi dof lañ lay jàppee dañ lay gis di reetaan nga yaakaar fekk dañ naan boo ba tontu fa ba ma juddoo ba tey maa ngi door a gis nit bu ma nit bu ma jàppee dof c'est la première fois si yow moom. non dóor bi ngay dóore moo tax bàyyi bàyyi dóore. non non non waa ji dafay gaaw. maa ngi maa ngi door a gis nit bu ma moom kii ma la bëggee noonu laa ko jàmm laa wax. maa ngi door a ma considéré. ku dóorul su ko jekkoo dóor ko. abu dóor la. bul dóoreeti boo amee komba jàppal daan. ma dem Adrien wala ma dem terrain gaal gi. waaw léegi da ko bëggee moom xam naa fi mu am bëri bu amul dóor xam naa fi jox ay changement. mais mais mais ma ñu laaj Forza. Forza euh, déglu nga déclaration bi nga xamante ne Malick Niang def na ko bu mu duggee ci live Instagram bi. déglu déclaration Malick Niang euh, Malick Niang tey nee na comme tey Kati Diop mi nga xamante ne moom moo la yoroon Kati Diop moo ko yoroon moom def ci moom lu ne comme Kati Diop moo la yoroon léegi nga entraîné moom parewul pour bëri gi yow est-ce que loolu noonu yow da nga ci ànd moom wala àndoo ceeg moom parce que am na droit déclarer loolu mais yow lan moo ci sa xalaat yow Forza waaw man li ma bëgg a li ma si bëgg commenter rek tuuti la moom moom dafa yàgg wax ci Forza de Forza amul permis bu bëreeg moom Forza amul xaalis bu bëreeg moom li mu ko li muy fayeeko Forza fayeekoo ko ci lu njëkk mu da ko wax mais nag àdduna liñ naan looy wax rek na nga ko xam ah, dox na nag ba Forza te bi muy ñëw ci làmb Forza ak rawoon mais Forza amoon na benn petite stand baay boo xam ne daloon na ko après moom mu xaw ci génn tuuti après ci la nekk di wax mais tey jii Kati Diop Fass la njëkk euh, anti moo daan yóbbu tabaage muy bëri daan ba ci yàgg ñu am écurie Dakar muy écurie bu mu xamee Kati Diop moom seen papa Kati maa ngi koy nuyu bu baax Kati Diop andi na andi na andi na andi na andi na mu bëre ak Gris Bordeaux andi na Yékini Yékini jóge écurie Fass gi perkati jom jóge woon mu bëre ak yëkkini perkati andi na Yékini mu bëre ak Moustapha Gueye Moustapha Gueye mi perkati doon yob sport la sport ñàkk xaajale bi muy def te di boole ay nit moo ñu boolewaat ba tey perkati ñëw dañu tàggataat tey moom bu fekkee dafa nekk écurie Fass Ndakaaru ba léegi combat ma ak combat ak Forza dina jafe pour mu am mais bu fekkee ne nekkul écurie Fass Ndakaaru bu bëggee sax ma bàyyi perkati kër ga mu xaar ñu si kër gi ma ànd ak soos dem bëri jeeg moom loolu yàqul dara. ah Bébé Sèye. man li ma jaaxal Malick Niang bi ma ko tuddalee Forza daf ma ne bës fii États-Unis la fii dafa sedd mais maa ngay commencé ñàkk. waaw. daan naa ko. la lébu laa. nous sommes des xamante nañu bu baax. bu ñu xamantewul ci nii. xamante nañu ku ci yëg-yëg du dëgg. Mm-hmm. am na ay jamono ci gannaaw bu daan bëree dama ko daan dama daan toog di ñaan pour mu am ndam wala déggoo lim la mm-hmm. Mm-hmm. mais àdduna nag nit boo ko laa xam na nga laal ko moom daf ma cuxa fenn laal ma fenn te xamul ne man ku ma xëy ba gàjja maa ngi koy dégg ci benn wax mu ne bu ñu daje woon ci bedd su mu sa bët bi suufa nga ci da kay lijjanti no moom du ma man ah. man bu fekkee ne bu fekkee ne moom dafa dem ba mu toll ko moom mu bëgg a liggéey sama affaire ba muy xaar ma ma nekk sa bët bi suufa nga ci mbedd non day ñëw ñu tëgg suñu combat mag moom mu am assurance mu am assurance ñu dugg ci biir géew bi arbitre bi génne may ñu ñun ñaar mag moom ak yàlla ci biir géew bi mu xam ne lépp dëgg la mais nag Hmm? man tollootuma ci àdduna foo xam ne da dajeeg nit ci mbedd. di xeex ak moom ma dóor mu faatu wala mu dóor moom faatu après coono di ko si teg coono di ko ci fekk te ci mbedd dafa doy waar loolu du exemple bu rafet. parce que hmm. ñun tollootuñu fu ñuy wanee exemple boo xam ne nit da ciy roy. li ma doon wax sama xale yi laa leen di wax àdduna tollootul foo xam ne nit ma ne man bu fekkoon ne du xaalis boo xam ne dañ ma koy fay ma taxaw ci biir géew bëri pour ngeen kontaan. kon doon ma xeexat sama àdduna. waaw. am na ko dugg de njaago bi dugg na de. njaago bi dugg na de. bës dégg ma bës génne ma dégg ma dégg ma. non man mi sax damay man may gars mais man dama bëggoon wax Forza. waaw waaw ci man ah sama gis-gisu bopp c'est bien beau combat la mais pour man. bëreeg Malick Niang moom Malick Niang na huit ans bëreewul moom bëreeg moom instant moom da nga nekk ci dynamique boo xam ne wax dëgg yàlla moom man bu doon man maa lay conseillé maam yéen ñaar doo ko jël quoi foog xanaa mu ñëw bëre bërewaat nga bëreeg moom mais ci man avantage bëreeg booy euh, Malick Niang. dëgg la. ah léegi nag